merci à tout le monde salaamaaleykum euh, mbokki Sénégal salaamaaleykum euh, mbokki Louga askan bi nga xam ne actuellement ñu ngi seetaan euh, Leral TV fépp ci àdduna bi di jaajëfal aussi tamit ñi nga xam ne ñu ngi seetaan Leral point ak ñi xam ne ñu ngi déglu sur leeral FM tey ñu amaat mbégte amaat li nga xam ne moom mooy satisfaction ñëwaat seen émission face ak. émission face ak nag comme ni ñu koy waxee saa su ne dañuy ñëw ci dëkk bi xool ñi nga ñu am mbégte ñëw fi nga xam ne moom mooy Althiery fekk si si nga xam ne nit ki nga xam ni je pense que on va plus le présenter au niveau de Louga mu nekk ki nga xam ne moom mooy monsieur Mafal Fall nekk nit nga xam ni gis nañ ko ci li nga xam ne moom mooy action yi nga xam ne moom koy def au niveau de Louga tey ñëw fekk si ko ci këram di nar a moom li nga xam ne moom mooy développement nar a waxtaanee aussi tamit dëkk bi nar waxtaanee aussi tamit ci moom ci lu mu nekk euh, ginnaaw bi ñu nuyoo ñi nga xam ne moom mooy nos téléspectateurs et nos amis qui nous suivent sur internet sur euh, net euh, monsieur Fall ñu ngi lay nuyu. monsieur Diop ñu ngi leen di fay di sant ci choix bi nga porté sur ñun ah di ñaan yàlla itam. ñu commencé ci bisimilahi rahmaani rahim àll ko àggale ko ci alhamdulilahi rabil alamin waxtaan ci njàmbur waxtaan ci dëkk bi ak lépp daal loo xam ni yitteel na dëkk bi jërëjëf euh, bi nga nuyu ak xam ne moom mooy euh, ñi seetaan Euh, ni ñuy commencé émission face ak à chaque fois rek bien vrai que ñu bëri xam nañ euh, ki nga xam ne moom mooy monsieur Fall ma Fall Fall tey suñ doon poser la question à savoir bien euh, wax sa bopp nag nekkul lu yomb mais suñ doon poser la question à savoir kan mooy ma Fall Fall la nga ñuy tontu. waaw man day comme ni nga wax yombul man ndongo rek laa. taalibe sëñ Touba ñu ñun nag ngi juddoo Louga màggee Louga. jàng fii ba jóge fii itam dem extérieur yàlla def neen ne agriculture leen féete woon bi demee extérieur changé nañ tuuti option pour def informatique dem dellusiwaat nag comme tout bon njàmbur njàmbur on s'est orienté exactement dans le cadre de jaar nañ ci moodu moodu même bi may jàng dama def di moodu moodu parce que damay jàng damay moodu moodu la matin dem jàngi le soir sama permis pour man jaral na ma parce que am am naa ci loo xam ni maa ko dencal sama bopp liggéey naa ci administration avant ma dem parce que maa ngi affecté nin ma affecté woon région Saint-Louis ci département Dagana man maa amoon zone PAL dans le cadre de l' agriculture li ma DRC Saint-Louis ma demandé disponibilité pour dem à l' extérieur waaw disponibilité boobu nag dellusiwu ma pour liggéey agriculture administration foofu laa ko yemale maanaam di wut nag sama yëfi bopp dugg ci booba tey nag ah loolu la yàlla tudd maa ngi ci yëngutu di demoon daan dem di dikk bon ba mu yàgg ma ubbi fii ay magasin Dakar di def commerce euh, yàlla dimbali ma ci ma nekk ci lu bëri daal créer ay société dugg naa ci lu nekk dugg naa ci pêche bi dugg naa ci agriculture dellu si li ma xamoon parce que nekkoon naa opérateur semencier lu ma xam parce que daan naa ci def lu bëri maa ko arrêté année gu annaa bi euh, loolu yëpp yàlla mi daan sutural après coup bi may def nag créé naa société yu bëri bokk ko ay nit mais bu mu mujjee dama dellu si nag parce que xam ni loo defal jàmbur defal ko sa mbokk gën après ma créé société nag dugal ci samay doom mu nekk une société familiale muy 3S Sénégal salubrité sellal euh, moom mu yëwutu ci assainissement boo gisee toilette mobile yooyu li ma ci commencé doxal ayaat at ma bun sama doom jox ko ko mu géré ma nekk ci gannaaw di ko dox euh, à un moment aussi ma xam ni bu la yàlla maye dara il faut nga delloo njukkal yàlla delloo ko nag ci nit ñi la parce que yàlla mënoo ko jox dara lu dul nga jaarale ko ci nit ñi moo tax aussi euh, création Njàmbur SOS humanitaire foofu la doore bi mu dooree c'est-à-dire Baye Diouf moo daan def douze août ma suma kër gi ma fi daan dalloo ay benn seexam moo xam ne professeur Diouf ñuy waxtaan ñu def ko première année consultation gratuite mu toog deux ans gisuma leen mën la laaj ko ma ma ne ko yow lu tax defatoo ko mun ma ne dafa dafa difficile dafa dur ma ne ko lu mbooloo ànd du defi la l'année d'après ñu def ko ensemble mais y a eu une réussite vraiment éclatante ñu defoon ko ci leen jógee nag am idée créer un truc entre entraide bi moo doon ñu créer SOS Ndiambour humanitaire vraiment on a eu une parce que aussi appel bi ñu defoon à tous les njaamu njaamu ils ont répondu vraiment l'écho était très très favorable parce que vraiment dem na ba sax dépassé sunu njort je peux prendre à témoin Modou Mbaye euh, <coughs> ak euh, kii Diop Braya ñoom ñoo àndoon dina accompagne ci yàlla mi dara tawul vraiment on a eu une réussite plantante ci ba dépasser sax mais bi nu ko defee deux à trois ans on s'est rendu que y a on s'est rendu compte que y a des parce que tu peux réunir du monde deux à trois jours durant on est c'est plein on arrive à avoir des médecins ici mais li ñu ciy def sax daan faj ñi taxaw bon bu dee ay maladies bénignes mais des fois da nga déceler ay loo xam ne dafay doy waar mm-hmm. lu doon ne ay cancer lu doon ne ay ñoo xam dana nekk ci jaaxle te ñooñu bi ñu ñëw yaakaar lan am en fin de compte doo ci man dara ci deviens impuissant loolu moo tax ñu def au moins une autre euh, pression seetaat xoolal suñu bopp ni lii daal baax na trop mais am na leen lu ko gën ñu seet nag pour au moins acte nos, nos, nos actions sur des trucs vraiment ponctuels à chercher par exemple par exemple ci lañu commencé di def euh, déjà ceux qui ont euh, des appareils dentaires ñu commencé on en fait deux cent ya y a des démunis qui n'ont pas la capacité de faire minimum mi ngi jar cent cinquante à cent quatre-vingt mille francs mais nous on le faisait gratuitement avec l'aide de quelqu'un boo xam ne moo tax def lu baax rek am solo dafa am suma benn jarbaat mais vraiment mi ngi dëkk Koungheul mais xam moor bi muy jàng dama ko dimbaloon bi muy jàng bi mu génnee ne spécialisé wul ci loolu mu ni mën a amul leen lu mu la mën a dimbalee loolu la ma doon jàppale man dama daan jël intrant yi rek ak lu ma ko joxal mu defal ma ko xam nga loolu lu am solo la ça m'a permis de faire un million de deux ans j'ai dû arrêter avec le Covid peut-être am nañ intention defaraat ko reprendre ça bon après nag ñu diversifier action yi au niveau de de de Ndiambour SOS bon action sociale yi ci jàpp ci jàpp ci nit néew doole yi euh, tabaski yi korité yi lépp daal mais avec l'aide de Dieu ça permet exactement de venir en aide loolu yàlla dimbali nañ ci côté boobu je me suis investi ba nëgën fii ci laa nekk yàlla ngi ciy sotral la aussi j'en profite pour faire appel exactement à tous les njaambur parce que mbir mi à moi mënuma ko je suis obligé exactement damay def la ma man keneen di si ma et je suis pas éternel aussi danoo créer benn structure boo xam ni on demande ay jeunes la woon pour ñu def nekk parce que at yi mot mënatu ko leneen di am on est obligé de faire appel à des jeunes pour que ñu jël c'est pour le groupe qu'on a créé ici et on le secrétaire général exactement Matar Sow avec son équipe avant Kader Fall moo fi nekkoon bon il en a cheminé pendant quatre à cinq ans on le remercie au passage loolu daal moo fi nekk sur affaire sociale bon leneen li man samay activité lu bëri bon je vous le dans le commerce parce que je suis le vice-président du groupement économique du Sénégal euh, en dehors de ça aussi j'évolue au niveau du tribunal de, de la cour d'appel comme juge consulaire loolu yëpp ce des occupations mais grâce lenn moomu si gën a ñor ci ndombal tànk yi ma jox yëpp mooy li ma sëriñ bi jox représentant mooy représentant xalifu Daaru Muxti à waaw nit mooy li ma yor yëpp ci loolu moo ma gën a ñor parce que lépp lu ma yor lu dul nekkub taalibe ñoruma ci si liggéeyal sëñ Tuubaa rek ba am ngërëmu sëñ Tuubaa moom ma ñor ci leen dara yitteelu ma moo tax sant la macha allah euh, sëñ Tuubaa fi euh, kontaan nañ ci li nga xam ne moom mooy présentation bi monsieur Fall est-ce que yaa ngi ko doon wax sànq euh, waxoon nga ci wàllum investissement est-ce que nekk na lu yomb nga ñëw di investir au niveau du Sénégal parce que wax nga ko bi nga yàlla defee nga nekk émigré bi nga defee bu nga retourné da nga wax da nga yëngu ci wàllum li nga xam moom mooy entrepreneuriat quand on parle entrepreneuriat moom mooy investir jël ay nit liggéey loo leen est-ce que nekk na lu yomb fii si Sénégal. mais est pas aussi facile que loolu koy wax. Mm-hmm. investir dans le cadre c'est-à-dire il y a beaucoup de freins. Je vais donner exemple. Rien que le secteur bancaire, ça pose problème. actuellement je suis bien placé parce que maa ngi leen di défendre parce que sur le plan dangay nekk ndaw am ambition bëgg a créer quelque chose wala bëgg a def dara mais tu te heurtes à problème parce que ndaw amul moyen moyen yi foo ko amee banque mooy am sollicité wóolu leen wóolu sa expertise wóolu sa xam-xam jox la kuy door mais ay frein la je donne exemple bu ñuy appel d'offre dañuy wax ni par exemple dañuy def ay critères nga am expérience wala nga am temps d'année ku musul de def dara nooy amee temps d'année kooku ça du gagné benn marché. bac plus six expérience que léegi dañ lay wax ni par exemple marché bi lii la il faut kenn koo xam ne def na ko ñetti at wala ñeenti at ku ko mës def liggéey waaw mais dangay am da ngay ndoorte pour def ñaari at ñaari at ku door kuy door defagul dara kon du am marché mukk c'est ça un drame dans le c'est ce dont je suis contre bu dee dimbali nit da nga koy dimbali. nit ki sénégalais la montagne mun la génn fen demul fenn ndaw la am na ay diplôme mais am na intention def mais may ko loo xam ne dana def au départ on a voulu aider du temps de Abdou Diouf avec l'opération Maîtrisard c'était une innovation mais ça a mal posé ni ko tege woon moo baaxuloon ba mu nekkoon un échec waaye y avait une garantie étatique étudiants yi mënuñu woon dara ñu ngi doon maîtrise yi mais dañ leen accompagner am na ñoo xam ne ba léegi ñu ngi dund ñu ngi ci des suites def nañ ci ëpp am na ñoo xam y avait des transitaires y avait des hommes d'affaires y avait des transporteurs un peu de tout c'était une bonne idée mais malheureusement contexte bi nu ko jëlee woon ak xale yi ñu ko jël amuñu formation nit boo ko jëlee itam ne ko jox naa la ay milliards fii wala jox naa la ay millions commencé liggéey ci xam ne xamus la am euh, dix mille francs yaa ko so yaa ko ndil coono loolu itam handicap la woon mais fii ñu nekk y a des possibilités je donne y a des rien que la terre suuf sii laa wax suñ ko développé comme ça se doit mais écoute dem naa Israël le projet TIPA est la projet TIPA xam nga lan la day def culture intensive jël ñetti wala juróom benn juróom borom kër boo leen surface bu restreint jox leen moyens ñu développer loo xam ni cultiver ko normalement ci ku nekk du génn mais li fi nekk fii kër Momar Sarr benn njaamur njaamur wartul génn extérieur tey boo demee extérieur la nekk da nga leen yërëm ñoom bëgguloo ñibbi ñibbi si moo leen gënal mais doonoo ragal si lu ñuy wut si lu ñuy fekk xale yi lekk Louga xam nga Louga c'est une terre d'immigration mhm. kër yi fi tabax yëpp ñoo ko tabax booba immigration neexoon na da nga daan dem di diggante leen jéerle lu njàng yooyu yëpp xale yi ku ci yàkkamti boo demee rek am dara yónnee sarak mu ñëw boobu c'était sain booba duggugun ci lu lu bon li muy ay drogue yooyu da nga daan ñaq liggéey mu xam ni kii lew na sa dërëm bi foo ko dugal lew na soo ko yónnee sa bàyyi mu mu xam ni kii ñëw ça c'est très important ce qui a fait que exactement la gloire de Louga en son temps c'est les immigrés mais une bonne immigration une immigration saine ça j'étais là-bas je les côtoyais ah mais vers les années quatre il y a une déviation les gens ont voulu avec l'argent facile bëgg xaalis bu gaaw tey tey ma am xaalis di jëkkante oto yu bëri di jëkkante tabax yu bëri loolu lépp muccul le sëñ Abdoulaye waxoon rek day jëkk ci ndigg dem ci bopp bu jëkkee ci bopp dana wàccaat ci ndigg wax jooj du dem ñi fi doon def argent facile yëpp boo leen gisee da nga leen yërëm delloo si nanu si moodu moodu bu ça veut dire que ne actuellement c'est la misère ça de plus son homme boo gisee ñi nekk Espagne wala Italie xam nga li ñuy def dem ci supermarché yi di pousse pour ñu jox leen un euro wallahi am na ñoo xam ne amuñu fun tëdd ñu ngi mel na ay clochard ça c'est l'effet de l'immigration il faut que ngeen def dem foofu xool ba xam la situation de ces immigrés mais le drame en est que condition de retour bi Sénégal créé wu ko ils ont peur am na ñoo xam bëggatuñ fa dara mais lu ñuy fekk si fii lan xamul mooy seen problème mooy seen problème. oui. que euh, ñi nga xam ne mooy njiit am nañ ci part de responsabilité. kii dem mayoo ko billet xam nga temps yi ngay wax da ngay mbëkk ak yëpp mais bu def mbëkk amul danga daan dajale xaalis fexe wut visa am na période boo xam ne bu njëkk batoo fi daan dem bateau Massalia yàlla tuddoon boobu da nga daan dem y avait qu'un seul qui pouvait faire benn toile woon da nga daan inscrire si Chérif Sey nga joxe fi xaalis sa baay joxe fa xaalis bu demee jaay euh, sa yaay jaay oram wala def ni fayal la nga dem mais da ngay am jom gone tey yi ak gone yi njëkkee bokkuñu xam nga luy différence su ñi dëkk ndakaarook ak ñi dëkk kaw gi yow dangay ngay bàyyi sa bàyyi mu nekk néegu ñax di lekk cere mu góor góorgóorlu économie yëpp mu jox la ko pour nga dem xam nga sa priorité mooy lan nga tabaxal sa bàyyi mu changé de sa statut ku doon lekk cere di lekk ceeb loolu moo doon problème bi loolu moo doon une immigration saine ku teral sa baay gis ko ku teral sa waajur gis ko loolu moo doon indi lii lépp diggante paaleen jëleelu loolu mu amoon te ku jis sa morom boo jëkkoon Gare de lañ dëkkoon mais il vive en famille Gare de Lyon tout le monde connaissait da nga daan génn si gare bi benn hôtel la woon hôtel bi de bout temps bu ay njàmbur njàmbur dafa nekk tout le monde sa connaissait te kenn du fa def lu ñaaw police bu fa ñëwee xam na ni du leen def dara jaay saaxaan la def ñibbi si tëdd def na mais après coup nag émission drogue drogue bi jóg gaa yàkkamti l'argent facile mu départ di nit ñi yàq nag mœurs yëpp loolu moo indi problème bi ngay dégg ñu jële ko foofu yóbbu ko Italie mu nekk Torino ah nga jóge foofu mu dem yeneen dëkk di wër loolu lépp bëgg a tedd lu gaaw te tegoo ko ci yoon waaw amul kenn ku la niw utum xaalis yomb na day nax boppam waaw ñàkk jëriñu rek fi am solo waaw nan gëm yàlla ñàkk là aussi de tout le temps dama ko doon wax peut-être c'est mal content j'en discutais avec un chef religieux dafa mas a ñëw ni ma sama sa yow de sa mbokk mii may na ma xaalis boobu temps boobu mu ne ma may na ma dix mille francs français muy sa muy des xaalis ba ma ne ko ah yàkk de jël na man mii mbokkam de mënuma may mille franc te laaj nga ko xaalis ba fu mu ko jël yow mënuma déedéet ma ne ko sëñ nit bu lay joxe boppam yaakaar la bu la jox loo xam ni danga koy seet fu muy jóge xaalis li xam nga yow leer na ma ni kii li muy def bëggoo sa def ko yow mënoo fexe ba génnee ko ci walla nga yedd ko mu génn ci xaalis bi mu lay jox léwul baaxul yow mi koy jox itam boo ko jë doo ko jariñoo man la yàlla loolu li ma yàlla bindee lu ma gëm lay wax ak koo mën a toll ci àddina fu ma toogee itam naa la wax li ma ma wax ko ko ma ne ko li muy def doo ci jañ sa doom am nga doom ju toll ne moom yaa ngi koy jàngal alxuraan pourtant doo ko joxoon visa mukk doo ko ni demal défilé am nga sa doom joo xam ne ma ngi itali ma ngi liggéey deful li ngi kii def du la jox li kii di la jox mais doo ko seet aussi il y une part de responsabilité de nos chefs religieux parce que buñ toogoon tey jii xalif yi ni kit kenn ku fi a andi xaalis boo xam ne léwul bu ko fi indi mu dir ko ku nekk dana xool sa subconscient bala ngay joxe ci àddiya loolu mu nekk ci loolu dañuy gis ay jeunes yi nga xam ne ils sont dañuy am li nga xam ne moom mooy ay projet Euh, comme ni nga ko waxoon sànq def nga cité euh, cité nga fi nga xam ne moom mooy Kër Momar Sarr terre bu fa nekk des fois jeunes yi dañuy soxla terre pour mën a revenir au bercail pour mën a investir ci seen dëkk mais malheureusement accès à la terre boobu dafay nekk lu difficile euh, monsieur Fall est-ce que loolu aussi tamit jarul ñi nga xam ne moom mooy suñu njiit ñu yombal leen loolu. <laughs> loolu ça me fait parce que du temps de euh, Dabi Diagne quand il était président du conseil régional. Mm-hmm. dama ko doon tooñ ni ko écoute moi j'ai faire SOS boobu l'idée été damay wax SOS en fait un appel waaw SOS euh, Ndiambour mun ma ma fa ça c'est trop dire j'ai l'appelé mun ma bo en fait dama discuter ma ne ko non les politiques vous ne faites rien pour ne cesse il faut ngeen dimbali nit ñi mais Kër Massar ça regorge de potentialité dëkk bu am ndox am soleil am suuf su baax mais pourquoi je israéliens defoon nañ fi benn ferme ferme dañ ko bàyyi à la dérive lu mu jëriñ certes c'est un fan pilote lii avec les projet que le président Macky Sall a fait mais c'est du tape à l'œil amul benn njëriñ ku mu njëriñ fii non faut le dire c'est pas un problème nous nous sommes l'agriculture il y a des gens yoo xam ne bu ma bu président doon wu ñëw fii on aurait sax dañuy dem luwe di du ay ay ay ay ay ay ay fosse ak ay nag pour indi ko won ko bu demee ñu delloo loolu rafetul réew mi il faut qu'on vive de réalité suñuy projet bu dimbali nii il faut que ñi ni dimbali ñu laaj leen seen xalaat parce que nit kenn du ko dimbali rek toog ci papier wala am projet taxaw nii déedéet tous les projets agricoles qu'on a pu faire c'est voué à l'échec parce que nous depuis le temps on n'a jamais jamais eu une bonne politique agricole moom lu tax ñu tardé ba nga ni si moi je suis contre de tout le temps maa ngi fàttaliku mes ententes ñu mos a def benn conseil avec Ablaye Wade ma jël parole ni ko man d'accord duma ci dans le cadre de la subvention parce que effectivement subvention li ñuy subventionné semence li ñuy subventionné engrais mais c'est pas normal d'accord d'accord ma ma mhm. ne monsieur le président li ngay subventionné def ko exactement yokkal prix aux producteurs yi saani njëg yi ngay jënd gerte njëg yi boo ko yokkee ba xam ni ku bay da nga da nga kuy jënd gerte da nga jënd gerte gu baax semence kenn du la jaay tout venant parce que boo amee bay jënd sa xaalis bopp di ko jënd kenn du la jaay gerte boobu parce que boo bayee da nga jaay prix bu baax li ngay subventionné ay milliards mu dëgg ci ay poche nit mais semence quoi mënuma comprendre chaque année nga jox nit semence xanaa boo joxee nit benn yoon ak semence mu denc ko bopp pour yéen mais tu fais de la politique groupe producteur mooy ñan chaque année dañu leen seen xaalis tu enrichis les opérateurs la dem seeti ay sëriñ jël ay millions jox ko ni ko lii sa wàll la fu ko teg nañ génn ci loolu tant que ce problème là n'est pas lu si de duñ avancé semence kenn waru ko jox ñaari yoon nit d'accord ma ci mais booy booy dimbali da koy dimbali mu def mu mu def capital semencier déwén boo ko joxee dix tonnes den waaw déwén nga bu ko joxaat dix tonnes wala vingt pour lan loolu moom moo war a joxaat seet ñeen ñu mën a dimbali ci semence mais waru ko dibiliyaat fa lay war a yem xanaa depuis le temps qu'on le fait depuis 1960 mën na nga ni si ñi ngi joxe semence dara avancé wut amuñu autosuffisance alimentaire sur le plan de l'industrie c'est nul parce que kenn mënul def dara bay ba pare di exporter amul benn transformation léegi mu koy man a avancer ci réew mi daal dañ waxante dëgg sur ce plan là c'est un échec total depuis 60 il n'y pas une bonne politique agricole on met des milliards chaque année on se répand c'est dans le cadre de l'inondation même chose li may wax ba la fa nekk at mu nag c'est récurrent 47 milliards ou 50 milliards boo ko si defee ci dëkk mais il faut un plan il faut nga wax nit ñi ko xam liggéey da koy jox ñi ko xam ak ñi wax ñu wax leen léegi di la bu jaree investissement cinquante milliards ñu def ko benn yoon mu jeex mais créer des sociétés pour les fleurs plaisir ñu taf tafal fële jox leen xaalis bi nawet bi bu ñëwee ku nekk toxu mais lii lu ko fi jar. la même chose. génn ci loolu. parce que dem laa wax il faut que sëñ bi moom moom Touba na jël à bras le corps dossier. état bi bu koy dimbali ne ko dimbali mu jël des spécialistes qui sont fondés qui peuvent faire mu faire appel à eux. ñu xool mais tu peux dëkk mel ni Touba ñaata forage fa am. ci at mu nekk ndox mi ah? mais tuyaux yi baaxul yàqu na c'est obsolète mais tuyaux yi dañ ko war a changer mais tant que wun ko ñaar il faut ñu changer tuyaux il faut ñu fay loo ndox Touba. fay loo ndox nit ñi. Mhm. Touba ku mën a fay courant mën a fay téléphone mën a fay ndox yaa xëyte mhm. mbir mi day avancé at mu nekk na la fa nekkoon temps wu sëñ Fallou moom yàgg na waaw nag mbir mi. jotte mën na de eh, loo fii def genn wàllu ndox mi ngi suuf si mhm. suuf suba màndi na ci ndox. y a deux choses il faut ñu dindi ko le plan d'aménagement ñu xool la ca war seet yooyu dindi leen assainissement bi ñu bët ko abalal ko dénk ko ko man suñu jar nañu wut ay spécialiste bu demee Hollande gi bu am na dëkk yoo xam ne loolu lañ jàng ni fay leen di leen war a fay mu def ko gis nañ say wax euh, sànq bi ngay def présentation bi ko moom mooy euh, Ndiambour SOS humanitaire mu nekk association bi nga xam ne yow yaa ko jiite bi nga xam ne Euh, wax nga ci aussi tamit li ñu ciy def au delà de Ndiambour SOS euh, euh, humanitaire damay gis à chaque fois say wax ngay wax ed aide aide aide ba lu yàggul tey suba rek gisoon nan ay yi nga xam ay machines yi ngeen xam ne wàcce woon ngeen ko la moo la gën a poussé monsieur pour la création de Ndiambour SOS humanitaire aussi tamit est-ce li ci doon xaar depuis sa création ba léegi yaa ngi ko ciy gis. mais sant yàlla alhamdulilah comme j'ai dit en fait. Euh, notre vocation bu la yàlla bindee xam nga doo bind sa bopp doo jox sa bopp yàlla rek moo lay jox ca bu kenn doo sa dënd ne man naa wala am naa wërsëg seexaluwul fu nekk lay dal da nekk dans une famille de dix personnes yàlla natt la jox kii wërsëg yéen juróom-ñeent yëpp mu ndóolal leen ci coobare yàlla mooy def ci coobare boppam mais bul defee da leen ëpp ngóoro yéen bokk ndey ak bàyyi defoo lu def mais yàlla mooy seet ka neex mu def ko mais bu la tànnee bul defee ne nag da nga leen a gën dellool sa bopp si yàlla li mu la jox yàlla bu la joxee fukk juróom-ñett yi daf la ko séddaloo c'est une pour pourquoi yàlla créé asaka xam nga borom alal yi ñaar la borom alal yi fekk asaka du ragal yàlla tax ñu def ko sàmm seen alal la tax ñu koy def ah, yàlla daf ko wax boo ko deful mu nangu sa jeex na moo tax yu bëri di sàkka sàkka yàlla julli ak woor c'est un devoir de tout musulman xam nga pont yi yàlla def muy julli woor sàkk murum koor dem màkk loolu charte parce que kii julli te ko war def kon par force la xam nga yàlla lu ma lay fay ci jëf ji ngay def ci nit ñi nga def ko ngir yàlla nga def sa wërsëg ak sa doole yàlla xam ni da koy def ngir ngir moom loolu la la yàlla fayee mais mas ngaa ab jullika jullikaat jullikat c'est pas un problème julli mën ngaa julli mii toog fii di subaa ngoon di julli yàlla mooy ngay amal boor yàlla ngay sekkante moom c'est pas son problème yàlla du la juger en fonction de ça mën ngaa julli sa soxal matul loolu la yaakaar yàlla yàlla moo lu gën a jege xam nga lan la nan bàyyi suñ bopp yàlla ci di góor ci def xam nga dara du miracle sëñ Touba li def du miracle Alaaji Malik li mu def du miracle xam nga lan la dafa liggéeyal yàlla bàyyee boppam yàlla yàlla en retour ko y yàlla du amel kenn bor waaw loo jëf mu fay la doomu aadama rek ngay liggéeyal mu lay non tey jaaral suba wala jërë yàlla loo liggéey mu fay ko ndagam iblis la liggéey mu taxaw mu fay ab li fas dana ko doomu aadama moo tax nan góorgóorlu ci jamono ji esprit entre benn bi ngay wax suñ ko defoon na nga si képp ku yor di dimbali sa morom billaahi jaaxle génn ci réew bi mais y a des gens qui sont mais defuñu seen warugar ku fi dee rek bàyyi milliard billaahi wàcc nga liggéey ci réew u foo génnee yaa ngi am boo génnee fii ba dem ba Dakar waxuma la nga dem nag au fin fond ci àll y a des gens yoo xam ils ont toutes les difficultés nawet bi amuñu lu ñu def dara ñorul ah nanu xoolaat suñ bopp à commencer par nos chefs religieux à commencer par tout le monde parce que nit ñi si boppam il faut ñu xool suñ bopp parce que yàlla sotti na de ba pare ñun ñoo ci des ñun ñoo war a jëf ñu ñoo war a xool lu baax di ko def yante sa moroom yàkkamti defe ne man rek war a am man rek war a tekki da ngay nax sa bopp fu nu jëm fu nu jëm dans ce pays là où les gens sentent wax lu ñaaw ci nit lu ko fi jar ce que j'ai dit ici aw Ndiambour Ndiambour ici da lay en avant bi daf leen a fekk mais daf leen di bàyyi ana homme politique yi fi nekkoon ana ñoom Samba Gaye Guèye ana ñoom Moustapha Cissé ana ana ñooñu ñëpp dem na qu'est-ce qu'ils ont lan la quel patrimoine ils ont laissé dama bëgg nit ki na def pour la postérité na ni lii ak lii la ceux qui nous dirigent actuellement qui son dans la politique mais il faut que ñoom ñu jëm à commencer à aider les gens à commencer par notre ministre la Moustapha Diop mais je lui ai dit qui ministre de l'industrie qu'est-ce qu'on peut citer que tu peux faire, faire Non. Mais je dis hein, ce que je pense. Quand j'ai vu la mairie, ça a été très bien fait. Je, le félicite. C'est des actions, mais on peut en priorité, tu peux être ministre d'un département où les gens ont besoin. Avantage du ministère Senghor, quand tu avais un projet, da ngay fex def lépp pour mu ñëw sa région. Moustapha Sy Tall, yàlla là kii piétine depuis combien d'années mm -hmm. Tu as été ministre de l'Industrie, tu essaies d'avoir des partenaires qui puissent le faire développer. Mais rien. c'est pas normal. C'est la même chose à Amity Beng. Mm -hmm. Il a été ministre de l'élevage. Il a été ministre de ceci. Non, le problème c'est ça, c'est endurant. Quand tu es responsable, xam nga nan laa naw ci dëkk nan laa naw ci politique yi. muy Idrissa Seck. li mu def ci Thiès ci doole état. Tanor Dieng li mu def njëñeen ci doole état mais ñoo ñëpp mën leen a servir de leçon yow bu ñu la falee ngay dem doomu gox yàlla may lay ndombay tànk nga am ay possibilité ah mënoo seet la nga mën a développer sa dëkk bala ngay seet leena mooy sa priorité ah c'est-à-dire foofu la Houphouët-Boigny doon ma Houphouët-Boigny bu la doon jël nga nekk si àll ba day xëy xëy rek ni jameet sa dëkk même boo doon sàcc ngay def leneen day jameet sa dëkk bu gisee dëkk bi yaa ngi koy améliorer wala dara mu ne ah wàññi li ngay def mais lii baax na mais au moins mm-hmm. mais personne ne de quoi que ce soit da bay sa mm-hmm. dëkk mm-hmm. boo fi ñëwee politique bu politique nga fi ñëw essayer woo développer ci dara ah mais les gens qui sont là mi ngi nii Mahmoud Diallo il est où au niveau de la lonage ONAS na orienté il a la possibilité de recruter des gens de mettre certains trucs na ko def ah le gosse qui était à Demdik il pouvait faire ceci laps sa temps ba nga fay nekk da nga fiy profiter dugal say say say waajur say say xale yoo xam ne boo fa bàyyee sax lii la njaan fadaa lu ñu koy wax lépp daaru musi bu jaar fu mu daan jaar day jël doomi daaru musi dugal leen au niveau des eaux et forêts fa mu nekkoon foofu ak yeneen def na ko ñuy gis ah Sonacos a ngi nii mu ngi siy dugal ay nitam ay doomu doomu daal mu si ñun nag on a des directeurs qui servent à rien du tout sur lesquels aucun njaamu ñaamu ne peut en ngi nii waxaale mu ministre dëgg rek tax may wax Moustapha sama doom la mais je n'ai rien contre mais je lui dis c'est que nit da ngay créer tey vous avez on a xoolal xëyu ndaw yi y a combien ban a da dem man mii laa wax lan ma ca may may ay place laa wax mm-hmm. ëpp na fukki place dama jël samay doomu xarit yenn yi ak fii muy Louga fii jël fii jël ñoo xam ni vraiment ils sont dans le besoin mm-hmm. dugal leen ci am naa ci fukk mm-hmm. dama ci dugal ay xale yoo xam lii la ah te kooku ñu ma ko jox ay kilifa la ñoom comme kilifa yii dara. te dama ne non am nañ ci Lougatou jur la laaj jur. ñi la koy jox waaw duñ ci ñoom la gënoon a jekk. def ma nangu ko def ko loolu rek moo tax ma ni am na loo xam ne bay sa wooyu tànk nit dafay jéem di dimbalee dimbali ngir yàlla mais ba ngay dimbali da ngay commencé fa nga dëkk waaw ah, mooy affaire aide bi ñuy aide nag dañ ci ñaan yàlla on fait appel à tout le monde du ngóoru dañu ñaan yàlla li ñuy def dañ koy def yàlla mu tax seetuñu ci den dama ni la ñaari dëkk yi laa gën a bëgg Louga gii ma juddu ak daadu mus ma nekk yaakaar ne fa may denc dëkk yooyu laa gën a lu ma am itam ñaari dëkk loolu yaa yokku yéene waaw li may def ci dans le social lu ma fore ndakaaru wala ko fore ko feneen jéem ko dugal fii wutuma ci nag war ñu muy gërëm li may def dama koy def ngir yàlla ak dëkk bi bu gisuma ci sama bopp soxla ma ci gis sama bopp waaw li may namm daal mooy lépp dama koy delloo pour am ngërëmu sëñ bi rek waaw parce que loolu rek ma ñor dara ñoruma ci liggéey bi ni liggéey itam dañuy ñaan yàlla ñun suñu wàllu wees na samay doom laa teg dans des instituts pour les pousser mais du tey aussi lamay may fortaatu ci yenn yoo xam ne maa ko dencal sama bopp dama koy delloo def ko ci social bi leneen toujours ñor je donne un exemple je pourrais ne chaque année dama daan yóbbu ay nit mag j'investissais de plus cent millions mais léegi dama ko dindi ni moitié bi dootuma ko defati ren je prends une enveloppe de cinquante millions que je vais mettre dans le dans sociaux ñu def ko ci fàkk dëkk yi parce que soo gisee réunion bi ñu def tey jii loolu mu araloon loolu pour ñu développer nit ñi seet ñi ñàkk dëkkukaay parce que en un en moment boo seetee ni ça me permet de fair un million avec deux million cinq cent deux millions sept cent cinquante mille francs benn kër gu potable boo xam ne nit mën na ci dëkk moo gën chaque année. ñuy lakk ñuy lakk waaw mm-hmm. sañcaan yeeg feneen. Mm-hmm. loolu xalaat bu ñu jëla tëral la ça fait partie de nos ambitions on le fait on le met sur place ci nag ñu ngi ubbi suñu loxo ku mu ngi jàppale ci jàpp parce que y a des possibilités njaamoon yaama yi am moyen bëri na ñu il faut que ñu seet nu ni fédérer suñu moyen pour dimbali leen nii wala amul dara c'est une goutte de vase y a des gens qui xool li mën a def waaw am nga sa mbokk yoo mën a dimbali am na ñeneen ñoo mën ni au delà de seen mbokk yi parce que fii li fi wër yëpp muy diggante Louga Euh, euh, nu mu tudd njàng paaleen jëleelu mais li fi nekk boo fédéré woon li fi am ci moyen rek ëpp na ay milliards ah loolu luy ndeyu xiif war a am fii mënul la ñàkk warul mën naa ñàkk mën naa ñàkk mais duñu ànd parce que nit ku nekk dafa bëgg gis sa bopp ci li ngay def te loolu yàlla taxul tey jii bu ma laajoon fëggoon lu si guddi ni la ah yow de dama soxla 10 millions parce que indi ko fële ma dajale 10 millions ñi ñëpp ñu def ko ngir yàlla mhm. mais tey jii bu ma ñëwoon télévision fees dell diw sàngam lii la indi caméra yi la amul njëg def ko ngir yàlla mhm. maa ngi jégalu ba mu ci li may wax parce que c'est-à-dire c'est mhm. la réalité waaw am na fii ñi ñoo xam ne mun seddale woon li ñu jox joxe li ñu jox billaahi njàmbur mën naa génn ci ci ci jaxare koy wax à commencer suñu dëkk bee Palen moom laa leen di wax. yéen ñëpp kenn bàyyiwu leen. on a créé un centre de santé yóbbu nañ fa du matériel bon ci dans un premier temps ça parce que en fait on fait foofu le centre de dialyse bi lañu bëgg a def foofu parce que dans les appareils qu'on a on bi nu may y a 17 machines de dialyse. 17 machines de dialyse. oui. yoo de santé bu nekk fu mu koy defee parce que actuellement suñ amee benn clinique communautaire bu ni wut sur Louga ça nous permettra parce que matériel mën nañ ko am am na ñu nuy bëgg a dimbali ñoo xam ne ay dëkkuñu fi mais am na nu gëm na nu lu leen laaj ci matériel ñu man na ko may loolu rek la l' damay fay transport bi fay douane mu ñëw ma génne indi fi am na conteneur bi ngeen gis tey suba loolu la woon waaw amoon na beneen bu ko jiitu bu defoon euh, échographie ak appareil dentaire maa ngi ko bàyyi leen ma fal ñoom itam naa la leen gën góorgóorlu parce que sante de santé mi ngi développé mais dañ ko bëgg a def boo xam ne mu nekk niveau un. Mm. pour que au moins bu Louga jàppee ci wet gi itam ñoom à côté ñu jàpp ci wet gi. est-ce que gis nañ aussi tamit li nga xam ne moom mooy matériel yi ngeen di tudd des fois suñu euh, waxoon nañu ko tey so ñu ci doon waxtaan suñu hôpitaux yi nga xam ne ñoom ñooy hôpital régional yi dañuy am problème matériel yooyu noonu. Euh, est-ce que tey on peut s'attendre à pour ñi nga xam ne moom mooy notre téléspectateur ou bien nos euh, amis internet que tey on peut se permettre à ce que yi ngeen am ngeen mën cee euh, jox li nga xam ne moom mooy hôpital régional yi monsieur Fall. non de tout le temps hôpital mi c'est pas on n'est pas étranger li mooy dafa amoon elfu self man mooy noonu migré yi créé woon nañ loolu. ok mais indi fi matériel bu dul jeex jox ko hôpital Louga. mais ñoom duñ ci gis seen bopp seen bokk du si gis seen bopp mais yow boo dajalee op matériel boo xam ne par exemple matériel bii mm-hmm. au bas mot actuellement au bas mot ëpp na presque valeur u cent million le mm-hmm. conteneur tey su ma ko gisoon hôpital bi lu tax ki doon fay benn ticket bi muy fay bu bu yokkul wàññi waa léegi lu muy jëriñ ci man dara loolu la ñu seet mm-hmm. man bu ma doon par exemple jox naa leen une sàngam mu répercuté ñu ni kii kat population bee tax guddu ko jënduñu ko kii kat nan wàññi lii mais dara léegi nag looloo tax ñu seet ñu seet beneen façon bu ñuy dëgg doxale pour wuri clinique communautaire parce que nous avons des professeurs dans notre association spécialisée yoo xam ne à la limite bu ñëwee mën nanoo gunge jàppale nu ba loolu mm-hmm. ay néphrologue ay lépp yi ngi fi yooyu nag lan war a seet du caageen concurrence ñun concurrence wun dañuy wut loo xam ni néew doole yi daan ci ci seen bopp am na ñoo xam ni amuñu lu mën a jënd sax ticket ticket sax mënuñu ko jënd da feebar boo demee foofu boo amul ticket doo faj waaw léegi foo ko may réew moo xam ne réew sous-développé bu mel nii au lieu ñu privilégier santé bi au lieu ñu privilégier nit tey jii moo doon dee ca hôpital ba la nga ñëw indi hôpital dina la yokkee njëkk première te demal fay sa ticket lan la waa ku ñëw waxuma la amuloo sax paas bu la indi hôpital mhm. mun lay fay ticket boo fayul ticket kenn du la yóbbu hôpital dañ lay fay foofu mën nga faa def ba faatu mhm. loolu ñu jaadu ci réew mi mhm. loolu il faut que ñu dem représentative wax ñi kii faj dafa war a faj Europe da ngay taxaw boo ñëwee urgence seen yoon nekku ci ki war a faj ki war a fayu xaalis dan lay faj ba pare dem fële nga leen demal foofu demal seet donc nga doog a dem seet boo mënul ñu bind la këyit faj bi moom par force ñu def la ko mais fii amu fi bala ngay wax dara naam ne man dangal fay tikki te loolu suñ ko def wax noonu seetal suñ bopp dafa ne monsieur Fall bokk leen motiver ngeen jël matériel yi di ko yóbbu foo xam ne nit faju dana faju mais loolu rekk a tax loolu rek yitewul mhm. bu doon def ak ak ak ak centre de santé kii convention la ñuy def ak ñoom. pour wane ni lii fi ñëw lii tax par exemple ku fi ñëw pour échographie au lieu ngay fay quinze mille francs wala vingt mille francs. Mhm. cinq mille francs ngay fay wala trois mille francs. Mhm. ticket waaw loolu c'est un minimum. ak yeneen loo xam lii la parce que matériel bi ñuy jënd. yàlla dimbali tey jii bu doon jalis boo ko doon def ci yenn soixante cinq mille francs ngay fay la séance. bu hôpital du ko jël mais ñun su on vient en appoint on n'a pas besoin de ça tey jii bu ñu doon def même ticket modérateur de cinq mille francs pour que mu mën a kii bi bu ko ñuy ak léeg ni si am di si def loolu lañ soxla pour nit ñi bu même bu ñu mënul def gratuité def un ticket boo xam ne c'est abordable de cinq mille francs au moins pour permettre mën a dundal loolu rek lañ si jublu ñun c'est pas à commercial wut ñu si dara ndimbal nit ñi rek ak jaam ñi tax ñu Euh, euh, dañuy gis aussi tamit par rapport ak euh, li nga xam ni association boo koy def tey Louga soo xoolee ñu ci bëri ci ñoom duñu bàyyi xel li nga xam ne moom mooy aide yi nga xam ne association bi koy def parce que ñu ci bëri ci ndugaatuwaay pensé yaakaar na ni quand tu fais pas de la politique rek tu fais pas partie de la société ñoom loolu la ñuy xalaatee jël ñu bëri ñoom jël politique def ko liggéey yéen vous ne faites pas de la politique parce que depuis bi ñuy dégg wax ba léegi amul lenn loo xam ni politique Euh, yan attente ngeen am ci par rapport à cette association ci population lougatoise mooy oui, je pense que ni au départ les gens parce que politique ku am booloo la bëgg politicien mu mel noonu mm-hmm. def na lépp pour débaucher moom pour mu dugg politique mm-hmm. même du temps du PS PDS muy affaire ñoom ñëpp man fi ma nekk mënuma politique parce que du sama mm-hmm. parce que munuma wax lu dul dëgg lu mu mënul duma ci dugg lii moo tax politique du sama wal bon bien avant que nag on a besoin des politiciens parce que politicien je veux dire que ñun ñoo doon def ci koor gi daan def association bi daan dimbali waa Kër Sëñ Dan au départ di defar ay ndogu di leen ci loolu mm-hmm. bi ñu commencé loolu ñu gis Mamour Diallo Mamour Diallo il fait de la politique boole dooleel Macky la am ma ne ko ah ñun on veut faire ceci dañuy léegi lan nga xam mu lan nga bëgg ma dimbale ma ne ko bon léegi je te donne une idée tu vas ne dim nga jox ñu pain chaque jour il nous faut donner mille pains mm-hmm. ci réseaux sociaux yi ñi ko daan toppee Kader ko doon toppatoo chaque fois bu demee ñu bind ko ci dooleel ma dooleel Macky def na lii mais c'est l'utile à l'agréable ñun notre problème c'est pas un problème politique ce qui nous intéresse c'est la finalité de l'opération euh, loolu lañ doon def mhm. bon ñaari at yi bu mu ci gisul boppam itam bàyyi na ko mhm. ñu lu tax moo xam lu tax bàyyi na ko ba koy def gërëm nañ ko am na ci yàlla am na ci li mhm. mais deux ans yi buñ ko sollicité gis ñu ko ah ñu bàyyi ku def ñu wax ku lii itam ñu noppi loolu la man amu ci kenn ku ci nekk du leen mukk lii la waaw ñenn ñi si dox leneen li dans cette action là booba bàyyi nu yàlla yàlla doon ñu continuer suñu vacation mais bi ñu demee Cheikh Ndiane on a vu que de tintamarre y avait de folklore affaire maanaam ndogu yi dañu file bon ñun dañ daan togg ay ndogu indi ko foofu dolli leen en appoint ku nekkee par exemple dix dix mbana wala dara mais après coup je me suis dit non c'est pas il faut que ñu changer am na ñoo xam néew doole yoo xam ni mun ñoo ñëw seen ngoor mooy leen ñu ñëw foofu di laaj léegi ñu recenser leen xool fi nu dëkk bu ndogu jotee ñu dem chef de quartier bi teg ko fenn benn kër ñu indi ndab ki koy indi ki ko jël ki ko moom xamuñu ko duñ ko xam sax parce que ngir kersa bu yabalee xale wala dara ñu defal ko ñaari ndabam fonde fii à trois de résistance mu yóbbu on l'a fait deux ans bi ma ko waxee sëñ daan mun ma yenn ñu ëpp tuyaaba ci defin gi loolu rafet la Covid bi moo taxoon ñu arrêté ko léegi def ay kiit kiit gi daan ci def ceeb def ci dëwlin def ci tendrement def ci waaw yooyu yëpp pour dox ren on en est presque exactement à six cent soixante kits qu'on a pu donner un peu ay relais lan créé loolu lépp def ko bon mais on essaie loolu lépp jéem rek la yàlla mi ne la tëwul parce que yàlla la ma ne la yàlla amulul la c'est on est redevable à cette ville là waaw dëkk lan dëkk Louga lan dëkk Louga lan leneen li politique gu mais on fait des actions lu nu si yàlla bind pour def la social lan si yem man xëccoo ma benn maire xëccoo ma benn poste électif loolu sama yitte lii ma jox ay poste sax ay ndomal baat ci muy GFM du lu ma bëgg mais lu mu yàlla parce que moo ki démb rek laa wax président GES ma ne ko damay bëgg a dindi sama ndombal tànk ci yooyu bëri mooy juge beeg représentant mënu ma ëpp naa def ma ne ko déet mënatuma ko ah il faut ma bàyyi keneen man ko jël place bi. Eh, eh, on peut du ñu du ñu jeexal émission bi sans parler du parce que yow euh, am bay nga ci sa li nga xam ne moom mooy sport au niveau de Louga nekkoon nga président de la SAC Ndiambour gis nga actuellement nii moment bi ñuy wax yow équipe bi euh, je pense que yaa ngi am écho euh, par rapport ak ak li nga xam ne moom mooy tolluwaayu équipe bi football Louga aussi tamit suñ ko nañ ko wax dafa am dafa am benn recul bu nga xam ne moom mooy sur le plan national yan jàngat nga am ci loolu. malheureusement je vais te répondre de manière objective ñu ngeen njàmbur ba ma ci bàyyi ba ñu jeetee lenge yi ba na nga xaw ma terrain xaw ma tuma ci dara toppatoo ma ci en âme conscience toppatoo ma ko parce que xam nga moi je n'aime pas du tout gêner parce que garçon mu jël sama relève sama salle bi garçon maa ko jox lenge yi pour mu nekk président njàmbur mm-hmm. mais booba ba tey ba njaam ba gaston jëlee kenn soo toog sama saal ma ci wax amu ci ingérence amu ci dindi amu ci yàq defar non c'est tout non non de temps en temps ils me disent je ne sais même pas exactement temps yi laa xam ne sax mu ngi tuddee dund moi je donne mon idée ah c'est-à-dire je me suis dit Moustapha Diop pas été une bonne option pour toi étant politicien de prendre le njàmbur xaw ma ku la ci dugal mais il t'a pas rendu service parce que politiquement danga nga investir lu bari te doo am résultat ba nga bëgg yow da nga ci jële ay saaga ay xas ci sa yéene defar la woon mais malheureusement xam nga àddina tu es accompagné que des xam nga c'est malheureux c'est le football qui est comme ça a Louga et surtout Louga Louga c'est ce qui sur le football bëgg a dund bëgg a dund ci football bi mais il n'apporte rien football Louga toi mais wuñ dara. kuy joxe fii ku fi nekk président njàmbur rek dee nga wet wet laa wax dee nga wet laa wax danga dund loo xam ne kenn du la ko wax parce que kenn du la ci fekk kenn laa wax yaa ko yenn yow dong sa bopp bi mhm. kenn du la ci fekk ba ba ngay bàyyi. kenn ku la ni am nga ni lii la wala nan laa jàppale da ngay nax sa bopp amu ci. que Ndiambour SA doon na doon na ah, l'a créé man lu ma dugal ci football c'est un par accident moi j'étais pas preneur je suis pas de ah. non il y a euh, feu moom ak Boubacar Gueye ñëw ma fekk si sama bureau. Mm-hmm. wax ma ni on crée ay société pour que. football bi dox. man leen écoute moi daal ça ne m'intéresse pas mais je suis preneur je peux mettre un million de francs jox leen un chèque de un million. si page de prendre des actions dem. ñu dem seeti ñu dem seeti Seyni Sène ak Ousmane Dieng dugal leen ci pareillement ils ont investi par loolu mooy départ Ndiamé Sall bi ñuy réunir fii keroog fekkewu ma bi man boobu maa ngi sama gàmmu bi may def annuellement fii ñu jóge fa ñi ma léegi yow leen élire directeur de la SA boobu y une dualité Saaxaay moo doon président Njàmbur waaw Saaxaay waaw léegi mu am dualité boobu première année d'exécution on a eu marché exactement c'est un truc def nan ci di def année bi ñu def sama xaalis la man maa def sama xaalis en dehors par exemple de certains les participations exemple y a qu'une fois où une vente a été faite mooy avec la vente du jour la kii Fall. Cheikh Fall. je sais pas comment je me plus en fait kon c'est avec le Jaraaf. Djeylani. Djeylani Fall. Djeylani avec le Jaraaf. Mhm. où on a pu récupérer à peu près une cinquantaine de million mais cinquantaine de millions yi c'est comme une goutte. avec les trois résistances les Ndiamour me devait un million de soixante et quelques millions. mais kooku je ne le regrette pas ah. cest ma ville je l'ai représentée aw ma problème yu may regretter. et puis c'est une expérience que j'ai vécue ça m'a permis de connaître beaucoup de gens. ça m'a permis aussi de connaître le milieu sportif. li fi nekk ak lii ni dund tey ñu bëri xam naa leen ci football bi xam naa ce qu'ils sont ak ban esprit la ñuy doxe bon je garde ça pour moi mais n'empêche ça m'a servi si c'était à recommencer en son temps dinaa ko def c'est pas l'investissement qui me fait peur ce que j'ai perdu en argent déedéet je l'ai fait pour ma ville si s'agit de recommencer pour ça mais autrement je l'aurais fait léegi nag nit ñi dañuy ñëw di ma seet si pour sport ku ma ñëw du ma am kersa ni du ma ci duwala ci sama dërëm muy football basket lépp luy sport bàyyi naa je préfère j'ai une autre vocation am naa leneen lu ma la tal mm-hmm. léegi li may investir ci leneen kay mu dugal ko ci social bi léegi non boo ñëwee du ma si wut ku ñëw di ma di ma di ma sollicité ma ne doomu su ma la jox dërëm li ma nar a joxe naa ko dox ci social bi loolu ku ñëpp xam ko bu njëkk les gens yi dañuy ñëw di ma bind ay lettres mais lettres si fii fini ku ñëw du ma xool sax damay xotti rek sànni ah déet du ma def dara li ma nam sama bopp bii li ci nekk xam naa ko tal naa leneen sama desit dund gi dama am consacré wu au moins liggéeyal yàlla ba am ngërëmu sëriñ bi ci man taalibe laa nekk te taalibe laa fas yeneen nekk ba ba ma yàlla bi euh, sama dernière question on va parler euh, de Louga tey euh, en tant que doomu Louga tey suñuy bëggoon développer Louga yow ci yan axe nga ñu mën a wax pour population yi mën cee bàyyi xel waxuma Louga rek le Sénégal il faut le développer par la base Thiès cher muy agriculture. dama ni il faut ñu dellu si à la terre lan la Louga ban industrie fi dama ne SPA yaa fi nekk. Mhm. SPA pollution lay def. la Sonacos des usines Nord non Sonacos c' est rien du tout c' est même pas un problème de ça c' est pas industrie c' rien du tout. c' mhm. est à dire nañu waxante dëgg en créant en voulant créer on a créé x man da seen mais par contre on a d'énormes possibilité mm-hmm. avec la lac de Guiers là Kër Momar Sarr ak tout ce qui environ la fa nekk potentiel kenn mënu ko mais dëkk boo xam ne am nga ndox am nga suuf su baax mais lan ngay soxla ci mais jantaax la mu dégg ay problème ma sàmbaag ma dem li nga fi soxla mm-hmm. mais jeunes yi cest à si on les développe di leen pousser à certains trucs mais xam nga xoolal déjà dans le cadre de l'élevage il y a beaucoup de jeunes qui s'investissent ici il veulent faire mais il faut que ñu leen a dimbali man j'avais regroupé pour diminuer euh, avec FAISE mën leen ñi ma xam toi ci immigré yi mën leen créer leen benn kiile la ñu créer benn GIE pour avoir un financement au lieu financement de ay 3 millions 4 millions ma ne ko bénéficier sur ensemble boobu ngeen def un groupement pour travailler en nekk mhm. mais malheureusement y' a pas de suivi. Mhm. cest à xam nga liy jax si réew mi. Mhm. ku yëngutul ci politique boo laajtee malheureusement ñit ñi ñoom dañu la dañ lay ragale xel. dañ yow wax bu la dimbalee élection bi da ngay jël seen place. ci loolu yitteewlu nu il faut que ñu delloo suñu bopp. politique Louga maa ngi leen defaa appel ku ma nga dimbali leen jàppale leen mais dans la diversion que vous faites là mun leen jàppale kenn. parce que bu nu àndoon di seet li ci war Louga ni kët ku nekk indi si bay sawaar ñu fekk la ci muy Mamou Diallo muy Moustapha muy Aminata Mbengue muy ñeneen ak ñeneen mais ku nekk bëgg a bay yaakaar ni yaa moom Louga Louga kenn moomu ko nana ànd danoo juddu fekk fi Louga dañuy dem bàyyi fi Louga ah bi nit di politique Mamou Diallo juddul woon Aminata Mbengue gone la woon Moustapha joo waxi nopp kayi suba par la grace de Dieu ñu nekk dans les rênes téye politique bi téye lépp kii téye ministre kii téye président d' institution présidente d' institution kii téye directeur de service ak ñaata Louga ñoo fi nekk ay responsable ku fi ji sa bopp ci lan ci ñoom normal loolu ah mais kenn mun la woo sa morom ne ko kaa kaay ñu toog kaay ñu toog liggéey sur le plan social mi la politique mais kenn koo fi waxante mm-hmm. da ngay defe nit ki mu ngi lay xeex suuf mm-hmm. kenn deful ngir yàlla mm-hmm. ngir àddina si politique rek te loolu war nañ ko dénn seen bopp politique ba kañ ah? ku ñu mën a politiqueal dama leen ko waxoon fii ñu ngi doon reyante APR du ma ma Macky Sall neen day dem dafa éternel ana Senghor ana Abdou ana Ablaye Wade nit ñëpp day dem bàyyi ko fi mais ndaw yi fi nekk nañu série de leçons di jàppalante di xoolante pour le devenir de Louga Louga que dëkk Kébémer du ko defal que dëkk Ndar du ko defal que dëkk Dakar du ko defal Louga tuwaayee koy defal nañ leen jàppale doomu Louga yi ñu mën si sequl ko seet loolu mooy possibilité léegi rek j'étais en train de discuter avec les instituteurs qui sont à la retraite j'ai dû former un truc pour que dans le cadre sociale am na doomu yoo xam ni ñi ñoo xam ni seen loxo mun la jot ci bëgg noonu jàng ñu seet dans quelque place on va créer une école boo xam ne dañ leen venir en aide mu nekk SOS dans ce cadre là ñu mën ko subventionné ñu fay jàngale di dimbali nit ñoo xam ne am nañ déew doole mu ñoo fayu ay ay ay école privée l' école publique est foutue domaine bu nekk nit yi mën a dimbalante ca kenn du xool yàlla rek a fi nekk nan seet suñ bopp mhm. te yàlla bi mu ñu bindoon yow mii am nga loo man mënuma ko am naa loo man mënu ko c'est une complémentarité waaw mais ku nekk bu yaakaar ne nii li ma nekk rek maa man fii wala yor naa sama xaalis soxlawul kenn dara yàlla bu nekkoon bu ndex ku ñëpp mu may ku nekk xaalis bu boobaa kuy defal sa moom dara dama leen léegi rek te yàlla bu nekkoon ñëpp milliardaire ku lay tabaxal sa kër maçon man la koy tabaxal man menuisier moo lay defal say bunt yàlla moo xam équité bi tax muy tax kii may ko lii may ko lii ñu mën a employé kii di ko fay mais ça va pas ki koy fay moo ko gën loolu mooy différence bi yàlla séddale la man de mhm. mais na ko neex nag la koy defee <laughs> waaw jërëjëf euh, monsieur Fall émission bi neex na ma bàyyi la nga <laughs> tàggatoog li nga xam ne moom mooy euh, nos téléspectateurs et nos amis internautes qui nous sur euh, leeral point waxtaan bi neex na lool Euh, ma bàyyi la nga tàggatoo ak gars yi Babacar merci. itam dama je fais un appel. de paix de résistance parce que réew mi réew mu jàmm la. ñu ngi jëm ci élection yoo xam ni c'est vingt 24 pour présidentielle loolu itam nañ ci bàyyi xel. parce que réew mi ñun kenn du ko xar ñaar. nous sommes tous des Sénégalais. que dëkk Louga que dëkk Ndakaar ak Saint-Louis yëpp Sénégalais rek la. casquette Sénégal la rek passeport Sénégal la na am man mi am possibilité di itam su ma itam lépp dëkk bu dem Sénégal la ko gën a sax dama ko mënatul parce que su ma demee damay tànk France moom mii noonu su ma fa demee damay tànk dinaa toog ba génn su ma génn appartement bi ma nekk ba ñibbisi bu ma demee pour raison médicale pour te dire que bëgg léegi bëri naa ci moroom nan ñaan yàlla am jàmm jàmm moo fi nekk ca bañ a ŋañante di xasante amul njariñ koo xas mën na laa xas waaw koo xamal xamal na la nan am teggin te lii ñu si def nañ si am yërmande Macky Sall moo fi nekk jusqu'à preuve du contraire ba vingt vingt quatre na am yërmande ci ñii doomu aadama yi am na nay ndaw mënuñu juum mënuñu def lépp ki am conviction di topp la loolu lépp amul solo ki juum da koy permettre mu rattrapé wu yow kat juum nga mën naa laa caw wan naa leen maa la ëpp doole mais duma la ko won loolu na delloo si xelam ci loolu ki moo amal njukkal Sénégal gi soo seetee parcours am de chef de service à président la république yàlla may la teraanga joo xam ni kenn mayu ko kenn fii santal yàlla delloo yàlla njukkal ci doomu aadama yi ni nii man nag je suis apolitique sama yoon nekku xam nga lu ma ñaar kuy defar boo ma wooyee ma ànd ak yow ci leneen lu yàq ànduma ci te duma ci far mën a doon ci àddina Louga gi la ma wax maire bu fi manti nekk yaay sama maire tey ji boo ma wooyee bu ma la mënee jur jàppale la pour le devenir de Louga je le fais ce qui m'intéresse c'est tout kenn nag ay ndombal baat passé naa ko xam nga li ma ñor sëñ bi waaw sëñ bi ma nekkal muy daara mu si muy sëñ bi li ma xalaat laa ko mën a wax bu ma joxee conseil itam ni ma maa bu fa nekkal su ma gisu am na loo xam ne du ci intervenir ku jubul ànduma yow ku doxul ci yoon itam du ma ci intervenir ah li ma gëm la parce que nit ñi ñàkk sàmm bu fayda la tey jii bu ma gisee kuy kuy kuy kuy kuy kuy kuy nekk ci yàmba wala nga nekk ci sinébar wala di def dara su ma demee di la ñaanal njekk fu ma koy toll dama koy ëppal sama bopp nit da def la may wax sëriñ bi sëriñ si ku war a atte kenn du la atte da ngay moytu loolu waaw maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal li ngeen tudd leeral ngeen gën a leeral ba yàlla mi dana tur yàlla jox leen ay ay ay ay ay ay ay lamp yu ngeen gën a <laughs> gën a yokk ah yéen a ngi vous êtes den derniers nés par exemple de télé mais vous au aussi sensation parce que yéen a ngi débauché yu bëri ça veut dire que au moins que am ngeen matière yàlla na yàlla gën a jàppale yéen ñi nekk ci Louga li ngeen di def une c'est une très bonne chose parce que il faut ngeen wone luga doomi Louga yi ak ñeneen Louga lañ cey def aller au fond dama bëgg nag li ma la wax il faut que ngeen def benn mission à l'étranger mm-hmm. pour xool doomu mm-hmm. surtout dans le cadre de l'immigration la ñuy dundee mm-hmm. il faut ñu xam ko la réalité qui se passe là-bas parce que se méconnu am na ñoo xam ne xamuñu seen doom la nekke de wallahi parce que la ngay bañ foofu di pousse chariot di jël bagage si toit bi di ko dugal si oto pour ñu jox la un euro am na loo xam ne un euro six cent franc la te boo defoon leen tedd am ko fi mais xamuñu ñuy def loolu rek waaw yal yàlla def jàmm jërëjëf yàlla na la fii euh, yàlla bàyyi on est très fiers am nga tey di def émission am benn euh, émotion par rapport ak nga defoon émission parce que je pense que euh, ñun en tant que jeune Louga ñi ñii la ñu soxla ñi nga xam ne daf ñu dañuy teg ci yoon dañuy wax dëgg dañuy wax aussi tamit fan la mën a jaar pour ñu mën a développer li nga xam moom mooy suñu euh, localité di am mbégte euh, dalaloon ki nga xam ne moom mooy monsieur Mafal Fall nekk le président euh, de l' association Ndiambour SOS humanitaire nekk fii ci Louga di yëngu ci wàllu ci lu bëri di jaajëfalaat téléspectateurs yi nga xam ne ñu doon seetaan di jaajëfal aussi tamit ñi nga xam ne ci internet bi sur leeral point net merci aussi ñi nga xam ne ñu doon déglu ci rajo bi di jaajëfalaat euh, toute l'équipe euh, de Leral euh, TV bi nekk Louga di jaajëfalaat son preneur de son bi Babacar merci aussi tout le monde di jaajëfalaat monsieur Fall yàlla mi nga xam ne moo am jàmm yàlla ñu yàlla defal jàmm yàlla na yàlla def jàmm ci Sénégal yàlla na yàlla def jàmm ci àdduna bi ak luga ak lu ko wér et on se donne rendez-vous incha allah ba beneen yoon ak beneen invité jërë ngeen jëf